ñu ngi ne Ama Balde waaw Ama Ama dégg naa sa combat ak Bombardier sori na de. ah combat bi ah sori na de. Ah. waaw Samb yow ma nga ma gis. <laughs> mais Ama maa nekkoon di xaru nag di jëli Bombardier. booba loolu ah. bëgg bëri rek taxul nga dem jëli bomb. non boobaa suñu garaara moom du rëkk. ah du rëkk non non du ñu rëkk. Ah. na daal. non Booma de négociation moom du sori moom moom champion la. waaw du sori man tamit du sori xam promoteur rek ñooy xaaragu rek. Hmm. waaye xam naa du tagee si du man bu hmm. ah. mais bi mom am na. bi am kay. waxtaan bi am na. bi kañ joxe xaar rek des. Hmm. waaw. Ah. Booma de bëgg na bëgg naa. Booma de bëgg nga bëgg nga. mais combat boobu tey bu taxee xanaa da nga bëgg mu teel ñu teel ko bëri mu féete boor wala. non combat maa kii ay un mois rek la bëgg mu ñu ko mois rek. waaw. un mois daal daa bëgg ñu préparer ma jéem si leneen. Uh-huh. xam nga dem seeti leneen ak leneen ak mais mais mais B52 mer la fanaanoo de. surtout daa mer waa Pikine ak Eumeu Sène nu ko def. <laughs> mais dafa mel ni moom munul dara si pied droit dara. si pied droit. loolu da ko jaaxal. mel da ko jaaxal. Hmm. xam nga ñun la ñuy teg. Hmm. Hmm. mais est-ce que daan ko ah seen Sène ñëw daan ko seen caat ñëw bëgg bëgg ko daan. dégg nga wala Pays Douar waa Pire Baboy sa wax na dëgg Baboy lay teg. waaw Pays Douar lay teg. <laughs> ah na <laughs> defal na fi affaire cek de. waaw cek sax Pays lay teg mais defal na ko defaloon na ko bagage de. waaw defal na ba mais dara tamit. Hmm. dara dara waaw. Uh-huh. dëgg yàlla fu jaar ak Eumeu Sène jaar ñëw rek. moo hmm. tamit mais doo wax ñoo bëgg combat wala loolu secret la. combat bi waaw ñan ñan ñoo bëgg bëgg na Kajoor production Kajoor production waaw bëgg mhm. ko maa ngi ñaanal moom yàlla ko suñu borom defal jàmm waaw moo ñu màkk lu mhm. yëpp suñu borom defal ko waaw bëgg na ko mhm. gëy tamit doon na wax waaw bañ sore ak yooyu ba mu nar a avance yooyu maa ko ne xaar rek ba bu si bombardier ñu dugalandoo avance yëpp jël avance nii tax amagul lu leer day nekk loo xam ne sonal rek waaw amul benen, amul ñeneen wala ñaar ñooñu rek la non ñaari promoteur xam na bëri na. waaw après per baaxum laay bàyyi mu wax waaye man promoteur yi ma dégganteel. waaw moo gis déggante naa moom. Mm. déggante naa kii tamit. Euh. Ibrahima ko def position. Euh, d'accord dëgg yàlla. donc nag combat bi sori na waxtaan bi sori na. waaw waxtaan bi sori na. Euh. waaw maa ngi wax waa Pikine nga seen xel dal. waaw léegi ñu gis ñu ma rëdd big bi. commencé nekk si bëri beeg nga làmb comme ni nga ko waxee woon sànq. waay làmb rek laa nam. moom bu neex la. dëgg moom rek laa nam xam nga tamit loo xam moom laa xam mooy xale ba léegi. làmb rek laa xam. donc lii la leen déwénal. Ah. Ama Balde doon jox ndëwënal bi yaakaar naa dégg ngeen ko nee na comme maam ak Bombardier sori na waxtaan bi sori na. Hmm. léegi mu rëdd big bi big bi. waaw waaw donc yaakaar naa li mooy ndëwënalu fan si. waaw ndëwënal fan ànd seeg deux cent pour cent bi. waaw hmm. wax dëgg yàlla dañuy rafetlu bu baax a baax si taxawaay suñu papa yi. bu hmm. si mel ni Père Buruxaan. waaw Père xam na. Jules Balde Mbaye Diallo. Mm. xam na mm. Baboy Balla Boy 1. waaw xam nga Tyson. Mm-hmm. ñëpp ñëpp cek. Mm-hmm. cek ñëpp daal rafet nañ si bàcc seeraas rafet mm-hmm. nañ si deux deux cent pour cent bi. dëgg yàlla. dem nañ ba ñun ñëpp. lu coow li bëri bëri bëri a booñaa mosu ñëw contact. mën a ëmb seen. booy contact boobu. duggaguma si làmb léegi def na ba ñun ñëpp. ñooñu jël ndox di naanante di kàcc. di fee kenn mooy tonte kenn def dara. dëgg la xam nga. mais dégg naa sax boolu kii boo boo nan la forox caay bokk ngeen ko lekk. waaw fii fii keroog koñu boo ñaa bi. waaw dañ demee noonu si mairie Pikine yeeg yooyu yëpp. après dañoo xiif ak yooyu. naa la yónnee vidéo yi sax. waaw ah. pare ñu nekk foofu bi lekk ak yooyu xam na. di doon loo xam ne. Mm. garaaw luñ doon sentir la. xam ne na mm. xëy na cat bi lu ñu amul fi tuwaar rek. waaw waaye tamit cat bu rayul semaine. Mm. même ba dégg naa ba léegi matin bi yéen a ngi entraîné. waaw ñooñu entraînement ñooy dem musculation dem ah, fépp. c' est bien ñooy dem lépp. kontaan bu baax a baax. di si remercier tamit Boy ñaa mhm. xam na wax dëgg yàlla bu demee ba mel nii mhm. wallaahi bokk na si suwe na si parce que ibbi nañ groupe mhm. heure entraînement bu jotee moo ñuy woon nañu nañ leen def nii nañ leen def nii xam na di si remercier Boy Niang bu baax baax naan ko fereel foofu la teg sa loxo noonu la xam na àdduna moom kenn ñëpp mag ñun. Hmm. xam na hmm. oto boo boo boo duggee si oto fee chauffeur nekk si. Hmm. kenn kuy dawal rek mooy ah, mooy chauffeur bi. ñun ñëpp ay champion ñun ñëpp ay mbër lañ. comprendre waaye yàgg yàlla moom la jagleel pour mu ñëw diriger ñu. nañu def leen nii def leen nii. kon dañ koy sant yàlla bu baax a waat di ko ñaanal mu bëgg si carrière yàlla ko suñu borom defal. waaw ah, suñu grand Eumeu Sène. xam na boobu ba léegi dafa amoon ah, ku nekkoon si moom. dëgg si wal moo gaañu. xam na. Mm-hmm. wax dëgg yàlla moom tamit mm-hmm. mu doon loo xam ñun moom moo ci taxaw bu baax a baax ñun ñooy ay raxam mm-hmm. xam na lu si war rek lañuy toog di ko ah, épaulé di ko ah, di ko kii di ko jàppale parce que moom fa la toll waaw moom fa la toll ñun nag ñoo koy nekk nekk si ginnaawam di ko xal lépp tolof tolof buy ñëw si moom ak naqar bi ñëw si moom rek ñu dëkk ko en tout cas daal kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax waaw lii moom dafa waroon am bu yàgg a yàgg wax dëgg yàlla waaw di si ñaanal yàlla suñu borom la fa cat xam na nag Pikine moom. waaw mooy Pikine. Mm. waaw ndaw na ngand na ngandul. Mm. waaye luñ dugg rek ñu yëg yëg yëg ah, gars yi yëg si. Mm. gars yi si. dëgg yàlla cent pour deux cent pour maa ngi siy ñaan. jàmm xam na. Mama Lamine bu Lamsaar. maa ngi koy ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm. waaw di ko ñaanal na ko àdduna nii àdduna ndaw mm-hmm. tolof tolof day ñëw si yow par mm-hmm. force mënoo si dara mm-hmm. parce que jullit la xam nga di ko ñaanal yàlla ko yàlla may mu am maturité ak xel bu mu ko téyee ak xol bu mu ko téyee ak kii bu mu ko téyee maama nag maa ngi ko ñaanal yàlla suñu borom defal jàmm dañuy déggante téléphone ba affaire yi amee ba léegi nag déggante wuñu woo naa ko ñaari yoon jotuma ko waaye après dama koy bàyyi xelam xam ni hmm. maman yi nekkul pour maman wax téléphone pour maman hmm. def dara comprendre hmm. xam naa suñ tànk bu oyofee dañ dox ba foofu dem xool ko comprendre tamit di féliciter ku su mel ni champion Siteu gis nañ at yu muy def bu baax a baax waaw loolu moo wax dëgg yàlla dañ ko si ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm bu baax a baax parce que nit moom amul lu taxawal Sonic comprendre. Mm. dañ koy ñaan yàlla na ko suñu borom defal jàmm. Mm, mm. en tout cas daal kontaan nañ bu baax a baax. si mbëri maa ngi gis ñuy def ay gestes yu rafet. waaw xam nga temps moom dañ naan mbëri ay duñu ay ligg ay kii ak yooyu. wax dëgg yàlla moom ñooñu ñaan yàlla na suñu borom defal jàmm. xam na. di encouragé Sokh. di ko bu baax a baax. tamit di félicité euh, Franc bu baax a baax a baax a mhm. baax xam na mhm. fan yi daal lamb yu am neex na trop aada mhm. face beeg qualifié bii xam na tamit neex na trop loolu moom moo nekkoon sama komba maa nga doon dem di ko suivre xam na xam nga ni tamit qualifié kon lu ma koy wax ni loo loo gën bëgg loo gën a bëgg loola la yàlla di xañ la xëy na buggoon a combat waaye yàlla aada face la ko jox waaw di encouragé aada face bu baax baax na ko na jàpp mais aada Balla da ci euh, ama da ngeen am benn booy bu mën bëri dëkk bi bébé Balla xam nga bu école de li Pape Diop Boston kooku jinne la de wala mi miinantewu leen. waaw Bébé Balla Balla Gaye Bébé Balla. waaw sama waay la. Ah. Bébé Balla pour Pikine am na ay de. Ah. boo boo ay tas si waaw. comprendre na ay ah. Basita numéro deux ah. xam na ay Soxob ah. Balde Pogola waaw xam na bëri na kii yu ñëw de booy yooyu dañoo weex xaat xaat xaat xaat xaat man contact yi rek laa xam ne kenn du ñoom la laa xam ne booy daal ku yóbboo bàyyi leen jàmm dëgg la mhm. jërëjëf euh, Ama nouvelle ba ngoog waaw yow comme ak Bombardier xam naa lu si des bëreetul. yow tamit di dina jaajëfal rek. baax a baax merci ñoo ko bokk ñoo ko bokk yàlla suñu borom defal jàmm. jërëjëf. dégg nga ko ñoo ngi toog ak. Euh, tour bi bàcc di électricien Ama balde bàcc mën nga présenter wu di yaay kan man ma maay hmm di électricien tous les doomu adama yi nekk ci dëkk bi waaw disponible kuma soxla dama may jot waaw nek ci tout près technopole waaw Ama balde nak ma mom dañu yag da ngeen yàgg waaw parce que 2002 waaw dama baye jang waaw juddu 89 le 29 novembre mhm. Ama di 89 ma dëkk Gazel moom mu dëkk Cité Police mm. suñu kër buñ génnee dem liggéey télé mm. ci salle bi dama koy tijji waaw su ma ko tijjee di xool nit ñi fi dugg nan lañ def ba dugg fi mm. léegi benn jour sam papa tere ma loolu quoi ne am na kuy laal télé bi jël ma yóbbu ma ci benn xaritam bu naan bas baay bas gaañu na yàlla ko yàlla yërëm xaaral ko àjjana amiin mu nekkoon suñu patron mu dëkkoon ko ñu fàllaay avant bala ma ñëw ñu nekk ko doon ay xale yarandoo foofu noonu sama jeunesse yëpp Koni Fala laa ko defee. xanaa hmm. jàngee métier yarandoo ñuy dem di dem di dem ba yàlla dogal yàlla def ci man xam-xam. Hmm. may liggéey suñu patron tellement de responsabilité may liggéey ba yàlla ni mu dogalee ama guy gi bëre. Hmm. bañ bëree si lañ tegoon benn taxi. après yàlla dogal ba làmb ji jàllee am am benn Ford Explorer. Ford bi paan mhm. ba paanee maa nga daan liggéey ama moom moo koy liggéey mhm. su ma ko liggéeyee ba pare ñëw boobu papa mu ngi dund mhm. ama boobu dem na doon na mag man doon naa mag mu ngi bëre doon champion yàlla nag mooy xool lu ko neex mu def ko day xam ne kii champion lay doon nit ñi sax ñi mën a seetlu dëgg da nga xam ne kii champion lay doon ñuy dem may liggéey oto bi ma ko liggéeyee ma ñëw papa ji daaw ko bàyyi ak responsabilité. Mm-hmm. parce que da ko jàppee woon comme xale xale la. Mm-hmm. xale la ci moom da koy jàppee comme xale bu ma ñëwee indi oto bi mu récupéré caabi ji. Mm-hmm. ne moom fils jox ma caabi bi ama ah, na ko non oto bi pareegul affaire yooyu noonu mu réer après ma dem. si laay demee di dem di dem ama ah, ku ne mag la day lu ko ne ama ah, ñoo maase man ak moom yàlla nag mooy xool nu mu neexee doomu aadama bindee ko noonu. champion bi mu doon la. papaam moo ko waral li papaam doon champion di nga jur sa doom yàlla suñu borom tànn ci koo xam ne day doon champion par force hmm. boo ko nangulul da ngay sonn Modou Lo jëlal Ama Baldé soo ko jëlul da ngay sa bopp lu temps bi nag di gën a dem hmm. doole ji di gën a bëri xam-xam bi di gën a yokk hmm. bëre bi di gën a bënn amal ndaanaan la ndaanaanu làmb kenn mënu ko ci làmb su bëree dafay neex. Mhm. actuellement ah benn làmb neexul. Mhm. man de sentiruma làmb. Mhm. actuellement sentiruma làmb du benn làmb rek moo neex muy Ama Baldé Modou Lo. loolooy làmb. loolu mooy làmb ji nu mu meloon buy nekk xale ku terrible la wala. daa nan la woon. non ndax dafa terrible bu nekk xale dëgër bopp. wala bu yàlla mooy déggoo ma de. li nga ah. mel rek noonu ngay mel ba ba ngay dee. Ah. waaw. vainqueur hmm. ca ba ngay xale la ko yàlla di def ci yow. kon la. ca ba ngay xale la ko yàlla def ci yow vainqueur. Hmm. da koy judduwaale. Hmm, ba ba ngay faatu. yàlla na yéex yàlla mooy bindee doon ni vainqueur ca ba ngay xale lay doon. ba da ngay doonee mag. d' accord waaw nit ñi xamante nañ de. da mais kii mooy mooy bàcc. xaaral ñu xool ko moo ngi dem si copain Ama Balde ah moom mooy mécanicien Ama. ak alaaji mbay ama la ngay wax si témoignage bi la sa waa ji defal nee na moom sa mécanicien la sa lépp la kii suñu waa ñaar dañoo yàgg bañ nekk xale ba léegi loolu moom nekkul ay mécanicien nekkul dara waaw loolu moom lu yàgg la wax dëgg yàlla hmm. moo xam ne loolu chaque jour benn wax laa koy tuuti élément poussin ah. waaw tuuti élément poussin alaaji waar kii ah. kii day dugg ci ay fil di génn di fil di génn xam mètre xam phase ah. xam non kii daal. Euh. Iba Kane. Euh. kii dafa garaaw de. Euh, garaaw si si Sadio baa ngi. waaw Sadio bi. waaw uh-huh. Sadio baa ngi fii salle musculation lañ ko bëgg a dem. ndeysaan. wax dëgg yàlla. Uh-huh. moom li moom boo nekkee ndaw. bëgg uh-huh. liggéey bëgg lépp. waaw na gars ñëw jàpp si. waaw ñun dañoo ñëw mënoon mu am mënoon a am vi am visa yomb na ko. waaw tukki yomb na ko. bu neexoon dem. waaye gëmul gëm réewam la gëm. réewam la gëm waaw mais na ko gars yi jàppale maire bi gars yi. dañoo hmm. teg loxo gars yi dañoo teg loxo bu baax mais Ama yow da nga bëgg Alaaji Mbaye seen relation noonu nu mu demee noonu. seen dañoo bëggante hmm. waaw moom. dañoo bëggante xam nga maa ngi la sama mag moo njëkk sama champion waaye kii si la bokk. Hmm. waaw. moom moom moom moom daf dama demoon foofu mu dama toppal nelaw. Hmm. yow bàyyi lii yow ñëwal lii yow. bàyyi football bi te bëre. xam ne yow bëri nga maa moom ñoo ah, kii kermes démb démb. yow kii man la njëkk a daal ci babat. ah maa moom njëkk a bëri babat ci at ba falaay waaw lañ woo waaw ne ko woon sa ñaari doom ñu bëri ah. mu woo ma ak Ama waaw ci laa xamee ni mbëri la ah. ndax boobu bu ñu nekkee ci mbedd bi mën naa ko daan mais bu jugee ba jugee ci géew bi waaw man xàmmewu ma Ama xar la ma daane jigéen maa ngi kii yow la mu ne ko sa papa taxawoon. non kenn du alaaji may kenn du alaaji may ama jërëjëf. a tout cas daal sànq baa ngi. waaw sànq baa ngi. dëgg yàlla moom kon salle de musculation lay nekk. waaw salle de musculation lañ ko bëgg def. waaw lañ ko bëgg a def pour gars yi mm. xam nga moom sport moom ñëpp koy def. Ah. te tëdd bool bi. waaw amul benn amul benn salle tam ay nit yoo xam dañuy liggéey di wàcc. waaw. Hmm. waaw mooy loolu am nañ suñu moniteur am nañ suñu lépp. Seer hmm. Sagane yi mooy suñu moniteur mooy suñu lépp. waaw hmm. waaw dañuy woo rek ah, man daal man lu ma gën a nawee Alaaji Mbaye waaw am na visa France am na visa États-Unis fépp bu bàyyi lépp mm-hmm. te moom dëkkam la bëgg a investir mm-hmm. kon dañ koy ñaanal yàlla ay a mm-hmm. si defagum nañ quarante millions cinquante millions dëgg mm. la ah budget la budget la ñaan autorité yëpp ba ñu jàpp ci ah. autorité yëpp dëgg la ñu jàpp ci xam nga maire yi nga xam ne ñoo fi nekkoon waaw ak actuel maire bi fi nekk nii muy Cheikh Diop xam mu teg ñu loxo parce ay doom Pikine lañ mënoon am. jéem mhm. investir ci leneen. mais jàpp nañ ni. Mhm. sunu gox lañ am. Mhm. xam pour mu gën ñu jàppale xam ni. Mhm. bu baaxee moom la bu bonee ñun la. Mhm. parce que ñun suñu jàng sorewul. ñun investir rek lañ mën. Mhm. te investissement bi nekkul lépp lépp cent pour cent day jógee suñu dañuy jël li nekk ci poosu seex. waaw ñëw jël li nekk ci poosu ama. ñëw jël li nekk ci poosu keneen ak keneen. comprendre nga. ñëw def fii. comme xam nga il faut ñu jàppale. waaw lii moom budget bu lourd la quoi. quand parce que loolu rek mooy vision bi. dëgg la fii. voie bi voie sportive la. waaw boo la fi 17 heures da ngay jom. da ngay dëgg la loolu moo tax fii depuis 2017 ngi fiy def si def naa fi restaurant waaw doxul uh-huh. ma fi jaay sandis uh-huh. su ma toogee sandis ba pare guddi gi maay lekk sandis bi parce que nit ñi duñ fi yow sandis dafa xaw a ginnaawee léegi investissement bi fi mën a def uh-huh. mooy nga collecter waaw xam nga euh, ñaan waa mairie bi ñu jàppale la accompagner la nga mën a investir pour sport parce que arène nationale bu nekkee nii EDK nekk ne milieu bi milieu sportif la xam nga te dina wàññi lu bari agression yi doon am fii amatu fi xam nit ñi bu ñu euh, bu ñu jëlee taxi jóge Dakar bu ñu ñëwee dañ bi Uhum. ñu wàcc parce que mooy ëpp sécurité ci ñoom xam nga ñu ñaan ñëpp ñu jàpp ci salle bi nu muy tudd Ama Baldé lay tudd wala Alaaji Mbay wala Falaay Baldé moom ku ne tëll dugg da ngay gis nga ni photo Ama muy ci quoi salle Fodé Doussouba salle Fodé Doussouba wala Fodé Doussouba waaw parce que ah. Ama moom ñun ah. mooy suñu produit ah. mooy suñu produit mooy seen ambassadeur mooy suñu produit final am produit minimum dafa am. Ah. produit milieu. Ah. produit ah. moom lañ xam. bu boobaa sax mbëru Pikine nañu bàyyi jóge fii dem ay Wakaam ak euh, Dakar. di àndi ànd waaw pour la rek pour loolu la rek. parce que ñun euh, moniteur bu mag a mag la. waaw parce que sëñ Bamba. moniteur sama combat yi bëri xam mbër moom xam mbër bu def. waaw di digalee xam moom day. digle xam dafa neex digle. ayca waa am na combat buusee moo buuse mhm. dëgg bi yëpp ñooy naan Alaay Mbay entraîné wu entraîné man mii laalo waaw wallaahi lu muy entraîné man dama ko entraîné déedéet kay si wàllum suuf ak yooyu ah. franchement mooy loolu ah. sport wax dëgg sport xëy na a amal. waaw loolu la rek ay daanu boof loolu la rek. waaw ah. mais mais mais troisième fois bi day ah, ah. yokk tax ma wisaal entraînement nekk sama añ sama. Boucher dégg nga sa copain lu mu wax de. lu mu laay waxal Boucher dégg nga lu Alaaji Mbay wax. non kooku baaxuma ci moom. kooku baaxuma ci bàyyi foofu muy wax rek. bu sax naka ne tàppal la ba ma ko dajee sama néeg. waaw damaa xaajal mu ne vraiment yàlla na bu may ñëwaat fii fekk na matériel yëpp mot. waaw benn bu blanc. waaw incha allah incha